الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو كوسي تي في جسان فيدو هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم إلى مدينة إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم onze billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi gërëm di sant ñuy teewlu Walfadjri ci jamono yi nga xamante ne ñu ngi ci waxtaanu uh, Gammo nekk fii ci Medina bàyyi Kaolack uh, war fee amal itam ay waxtaan yoo xam ne dañu aju ci guddi googu nga xam ne dañ ko jagleel ki di gën gi mu ndeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nag ñu nekk ak ki nga xamante ne mooy Ahmed Boucar Niang Ahmed Boucar Niang di gëstukat di jàngalekat di koo xamante ni itam ràññeeku na ci ay mbind rawatina nag ci mbind yoo xamante ni itam dew na ci Maulana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass mu jagleel ko ay téere yu bëree bëri ci ay xalaatam ak i gëstoom taxte ji ñu fas yéene yaatal ak moom ci lu aju itam ci loolu nga xamante ne mooy dund ak nekkinu ki nga xamante ne mooy Cheikh al Islam lim jot def ak lim jot a gëstu ci lépp loo xam ne daf ko delluwaatoon ci askan wi nga xam ne kon humanité bi comme ni ñu ko waxee euh, ci existence am yëpp daf leen mos di gëstu di ànd ak ñoom leen bàyyi leen li nga xamante ne yoroon na ko Ahmed Boucar ña ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay Ousmane bu baax. Euh, kon tey ñu fas yéene la vie et l'œuvre de Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass loolu nag boo ko waxee mu doon lu yaatu waaye itam dañ koy nar a tënk ci lu aju ci li nga xamante ni mooy gàmmu gi ndax gàmmu gi itam moo lal yëpp ndax itam gis nañ ne ci gàmmu gi la firnde yu bëri di feeñaat ci nga xamante ne moo ay tànk euh, Cheikh al Islam te mooy itam wër na àddina indi àddina itam ba fii ci Medina bay, wër na àddina itam ak ay xalaat ak ay njàngale yoo xamante yemuloon ci nit ñi kese waaye dafa demoon ba ci dem ba ci ay nations dem ba ci itam nekk panafricaniste nekk nationaliste demoon itam ci combat économique waaye demaat itam ci conquête de liberté loolu kon nekk loo xamante ne Ouma lëmm la doon liggéeyal tax tey jii ñu bëggoon Ahmed Boucar ñang ah, ci euh, njalbeen rek euh, nga euh, won ñu li nga xamante ni itam moo nekkoon cofeelu ki nga xam mooy Cheikh al Islam ci ki waral guddi gi nga xamante ni ci lañ nekk mooy guddik Rasulullah sallallahu alayhi wa الحمد لله رب العالمين اسما ماغلي غرام بو باخ دي لا نيو اترافير يومي نيو غروب والفجر ياب اك تيلي سبيكتاتور والفجر دي سانت يالا بو باخ دي لن غرام تي تانكي نين ديغو با اكسي في تي نيون بور لاج ني اي كادو تي كيغا خامني نين ياب موم لاج فك سي في بور فيتلو فيتو اك موم جودوك سوبين بيغا خامني مو يننت يالا محمد صلى الله عليه وسلم كي ويرو غامو ويغا خامني bàyyi nee na weeram la ma ndokkeel ndax weeru rabiul awal teru na te mooy sama weer man Cheikh Ibrahim gis nañ ne bu tukkiyaan lu mu tukki yàgg-yàgg lu mu sori sori bu weeru rabiul awal teroo weeru gàmmu teru rek dafay gis da gis maanaam si maanaam weeru gën ji mbindeef jege na ki nga xam ne mooy bahjati si min bani adnaan yi mooy sama mbégte bakkan te bokk ci giir gi nga xam ne mooy giiru adnaan jege si Medina bàyyi oo taalibe yi du jox kenn ngant ne nañ ñëpp ñëw ñu ànd célébré juddu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci juddoom ci la àddina bi leeree ci la yërmande tasaarooyee ndax yàlla moo ko wax ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni wu ma la lu may nga nekk di jëmmi yërmande ñeel lépp loo xam ne yàlla bind na ko kon ci gàmmu waaye gàmmu ci Medina dafay nekk en même temps li Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop wax une double commémoration dañuy fàttaliku Cheikh Ibrahim radiallahu anhu waaye di fàttaliku soppeem bi bu ñuy fàttaliku yonent yàlla Muhammad ñu ngi fàttaliku bàyyi mi ñu ko daan fàttali mi nga xam ne léppam rek yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ne du ma dañ du ma arrêté di tagg yonent bi ci julli ci moom ci di julli ci moom di ko tagg loolu moo tax dem naa ba nekk une pleine lune man man ci sama bopp kon nga gis ne xidma liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa dundam yëpp ci la ko ci la ko def nee na samay doom moom Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te man maay ki nga xam ne maay pik asiyetam maay ki xaaraan yonent bi sallallahu alayhi taxaw ci booram di xaar pour mu sottil ma may ma ay mbóot tëbbu ma lépp lu ma soxla te yaakaar naa ne yonent bi jox na ko ba nga xam ne nii doyal na ndax ne na yonent bi sallallahu ñëw naa di tagg te ku la tagg yow di nga ko may mu ne arab yi dañuy léebu loolu loolu fekkee ne wérul na yaa ko wax sax arab du changer lépp maa ngi ñaan nga defal ma ko lépp te lépp nañ ne wax nañ ne képp ku la tàgg donte ci benn bayti la yow di nga ko di nga ko ràmm xidma am ak dundam léppam rek mi ngi ko jëmale ci yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy le prototype du musulman mooy jullit pire pour nga nekk jullit pire il faut nga xam yentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ko wareef la boo xam ne alxuraan moo ñu ko digal ndax yàlla moo nañu yéen a ngi am le meilleur exemple ci yenentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana naka ngay royee yenent bi te xamoo ko gàmmu di méthode boo xam ne moo pop populaire la moo tax bàyyi lang olof lay wax donte moom lépp lu texte bu jëm ci dund yéen sallallahu alayhi wasallam maîtriser na ko waaye olof la koy wax pour ñu dégg ko ndax maas bi moo tax bu gàmmu daan jeex rek li ñu doon doon daw da nga dégg kaset yi kaset yi mu fi bàyyi kaset yi gàmmu yi mu naan kan mooy dugg ci lislaam nit ñi def franc ñoom ñëpp di dugg ci lislaam nga gis ne modèle bi nga xam ne mooy yéen ci yàlla Muhammad sallallahu buñ ko proposé nit ñi rek moy meilleure façon pour olen ci l'islam waaw. kon ci lolu nga gis ne kon euh, koku di sopem rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. bam ko soti le itam moom Baye moom itam jógaat na sottil umma bi ndax itam yemul ci senegal waye adina bi la wër di len sottil ci lolu itam ci ay firnde yu bari nga koy indi lele ci ay pon yo xam ne ma. deug la Cheikh Ibrahim. ñom pour adina yeb la ndax da ngay gis ne faydu bi nga xam ne la indi muy faydu fayda tijaniya kiko. prédiroon muy Cheikh Tidiane radiallahu anhu daf ne benn fayda mi ngi ñëw samay biir taalibe fayda bi bu ñëwee nit ñi dañuy dugg ci tariqa bi ay kuré kuré nga gis ne ci définition bi rek c'est un mouvement universel emut rek ci Sénégal gi mu juddoo waaye déjà moom kër baayam nga mu jugee rek c'était un c'était un c'était une famille boo xam ne demeure la boo xam ne dafa cosmopolitoon mauritanien chérif yaa ngi doon ñëw ñii ngi jugee Gambie di ñëw ngi bind ci l'islam au même ay savants marocains Ahmed Ibn Saih nga gis ne environnement bu international boobu ci la bàyyi yaroo yàlla xaral ko ci baax nag bi mu ootee rek dès les années 30 waa Mauritanie ñëw Gambie ñëwoon nañ ndax bàyyam amoon na fa ay taalibe ñu ñëw jàpp ci moom mu dem 1937 mu njëkk mu génn Sénégal 1936 1937 def premier pèlerinage am jaar Maroc dem euh, en Arabie Saoudite pour def aj dajee faak l'émir du Kano premier taalibe ni bàyyi bu Nigéria mu c'est un roi c'est l'émir du l'émir du Kano kooku def allégeance ci moom jàpp ci moom Euh, Abdoul Abdoulaye Abbas Bayero gannaaw aj googu bi guerre mondiale bi fekk invité woon na Baye Baye dem seeti ko bi mu demee tamit ñu ne yóbbaale Kachiful Albas nga xam ne mooy l'ouvrage ouvrage principal bi mu bi mu bind pour wane ne moom fay xam yàlla mi ngi am ba léegi faydu baa ngi fi indi fi ay ay ay euh, déclaration yoo xam ne ay kàngami tijaaniyee yu nekkoon ci branche xaafisiyen bi nekk Mauritanie ñoo ko bindal ñii di ko jox ay ijaasa ñii di seede ci moom ne mooy borom fayda bi loolu yëpp bàyyi indi ko fa bàyyi yóbbaale Kachifal Baas ba muy dem Nigéria famille bi nga xam ne moo doon moo amee woon Tijaani foofu muy famille Salga aju ci Zawiya Salga maanaam Mouhamad Salga ñooñu ñëpp ñëw jàpp ci moom. li nga wali Souleymane ak ñooñu ñoom ñëpp jàpp nañ ci moom à partir de kanu am muqaddam bu ñuy wax Amarul Falaki moom moo ko yóbbu ci au sud du Nigéria mu dem ba ci fi ñuy wax Middle Belt ay Lokoja ak Okayna nag yooyu tasaaroo foofu wër Nigéria yëpp naka noonu Ghana ku ne xam ne influence bi mu fa

ngay gis Medina Baye di ko gis ci fayda bi résultat yi daawa oote jëm ci yàlla bi nga xam ne Baye doon na ko def la ndax ba muy jaar Gaana nee na ba may njëkk a jaar Akara lakinna ankara ila takoraadi ma balagathum daawatun min haadi bi ko jël jugee Akara ba jëm takoraadi ci Gaana dafa mel ni prêcheur mosu fee ñëw kenn kuy oote jëm ci yàlla mosu fee ñëw waaye bi fa ñëwaatee da gis mu ne fa ankara ankara fi haadihi taxayara bi yoon nag Akara soppeeku na Akara soppeeku na nga gis travail am liggéeyam commencé na di feeñ foofu noonu ñuy dugg ci lislaam mu jëf def fa ay muqaddam régler fa ay problème triba tribaux yoo xam ne nii dëgg-dëgg bu taxutoon ak moom loolu du réglé wu ndax gis nañ li ñuy wax la querelle des imams fële ci commencé amoon na fa ci jumaa ju mag ja bi maanaam turuma génnee àddina fa tribu bu ethnie bu nekk taxaw indi sa imam ne ku bokk ci tribu du nekk sama imam bàyyi bind leen benn lettre boo xam ne nii lettre bu sévère la ne leen l'islam xamul tribalisme xamu ko yentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xamu ko te jàngaluñu ko saxaaba yi dañ daan tiitaroo naan ñun lislaam mooy suñu baay tiitaroo tamim wala xays muy giir yu yàgg yooyu noonu wala muy wala maam yooyu noonu arab yi yaaram yi cosaan yi daan tiitaroo yow yaa xam waaye ñun suñ baay mooy lislaam ñun fraternité lañ xam moom la ñu alquran jàngal yàlla moo ñu wax ci alquran ne naa xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu yàlla dafa ñoo bind ñu nekk ay peuple ak ay ethnie ak ay tribu yu uute pour ñu fasantikoo wala ñu tasaaroo de mais pour ñu xamante kon Cheikh Ibrahima dëgg-dëgg réaliser na loolu melting pot diversité bi ngay gis fii nii ci Medina Baye loolu fruit résultat yi dox bi mu doon dox ci nit ñi ci yàlla def na jihaat ju rëy jihaat boo xam ne nii bakkan euh, bakkan deret turuwu ci xalimba la ko defee ak oote jëm ci yàlla moom sax wax na ko nee na taqaadafuhu l ajwaau sharqan wa maghriban yubinu l huda fialan wa qaala wa jala mu ne univers yi ñu ngi may partagé avion bu ma wàccee rek beneen jël ma te duwluma ci dara lu may tasaare njub ci samay wax ci samay jëf ak ci samay tukki benn taalibeem bu nekk Nigéria tàgg na ko ne jihaadu cheikhi finnaasi bi xalamin laysa bil faasi jihaati bàyyi ci nit ñi xalima la ko defee mais defeewu ko jaase xalima la ko ndax dëgg-dëgg moom ak ñi mel ni moom ñooy jëmal yàlla mi ñu wax ne ki gëna a rafet wax mooy ki yàlla mi nga xam ne moo ñuy wax ne oote leen jëm ci yoonu yàlla ànd ak sages ak da ngeen oote jëm ci yàlla bil xikmati wal mawidati al xasana da ngeen oote jëm ci yàlla ànd ak sagesse ak waar gu rafet loolu la Cheikh Ibrahim utilisé moom la pratiqué wax ak nit ñi ni seen xel toll ba xëcc na jëm ci yàlla nee na méthode bi muy utilisé buy def daawa mooy bu nit ñi ñëwee daf leen i xemem loo yàlla mi nga xam ne mooy dëgg daf leen i bëggaloo yàlla mi nga xam ne mooy dëgg bëggaloo leen aljanna bañ loo nit ki nga xam ne amagut conviction bu dëgër fexeel ba ngëmam lalu ci ne moom bu toppee yàlla dana am aljanna bokk waaye nag dana formé taalibe bi ba mu yegg ci ne dafay jaamu yàlla jaamu ko pour aljanna waaye daf koy jaamu pour àgg ci jëmm yàlla ji te loolu mooy aljannaay dëgg-dëgg aljanna ji nga xam ne mooy le paradis du gnostique ki yegg ci yàlla aljannaam mi ngi teew njëkk muy génn àdduna sax kon ñu gis ne bàyyi moomu nga xamante ne itam def na jihaadul nafsu jihaad na ak xalimaam waaye itam terewul aussi bëggoon na maîtriser toutes les sciences de son époque wala mu jël ci part bi tax amoon na politique bu mu defoon te mooy nga xamante ne dañ doon doxal réew mi ngir euh, may ko indépendance am na beneen xeetu taxawaay boo xam jëm na ko ci wàllu koom am benen taxawaay boo xamante ni conquête de liberté aussi mosu cee deltu gannaaw manam ni islam ak euh, kàddu yàlla gi waxee ne nit ñëpp dañoo juddoo war yem yemale googu itam am na lu mu ci jot. waaw dëgg-dëgg yemale gi Baye joué na ci rôle bu mag mag ndax da ngay gis ne ci missive yi mu daan bind di envoyé muqaddamam yi nekk ci aduna bi am ci lettre bu ma sa envoyé ay lieutenant yi nek fële ci Mauritanie di len wax ne c'était en 1959 la première défiance envers envers le créateur moy gu Iblis yalla ne ko sujootal adama mu ne du ko sujootal ndax mako ko gën bàyyi mu ne défiance bi njëkk ci aduna bi njëkk moy bobu bobu te mi ngi tegu rek ci boddi konte ci biir xeet mako gën parce que man leer la Euh, moom ban la dafa lëndëm loolu mooy racisme gi ñuy dund nii rek Cheikh Ibrahim bi leen ko wax ne bu ñu sax di tiitaroo askan ndax ndox saw nga waay ngi nii li muy euh, ndox mu sell la woon te mujj na nekk di di di sobe mi ngi mel ni ngay tiitaroo askan te yow sa dara baaxul noonu rek la mel bàyyi di ñu jàngal ne dañuy wax bi comme ay dents yi peñ ñuy peñe woon ni dents yi émo nañ nañ émo noonu yàlla daf ñoo bind yenentu bi di ñuy jàngal ci ajam gu mujj ni yéen doomi aadama seen buur sen borom benn la muy yàlla seen bàyyi benn la muy aadama ku weex gënut ku ñuul ku ñuul gënut ku weex lu may ci ngëm yàlla bàyyi ku bëggoon di fàttali message bu égalitaire boobu nga xam ne message islam boobu la te euh, universitaires yi bind ci moom ñu ci bëri gis nañ ne dafa daan plaider la cause du du bas pëpp moo tax dëkk yu mel ni Nigéria moom moo poussé ku mel ni Alhaji Aminu Kano euh, des peuples du nord nga xam ne mujj na nekk ministre euh, Baye moom bàyyi daf leen daan dimbale di leen jàppale am na ku ñuy wax Alan Feinstein dafa bind livre ci euh, la politique ci euh, au Nigéria di wax ne kooku bàyyi dañoo niroo ite gi ñu jox nit ñi nga xam ne ñoom lañ gën a suufeel ci société loolu moo tax seen mission gaaw a tasaaroo te yonent bi tamit noonu la meloon Abu Sufyaan ba mu ba mu demee ca buur ba yaakaar naa buuru Faris la mu koy laaj yonent bi ñi ko gën a topp ñan la ñun ah buuru Rome mu koy laaj ñi koy topp ñi ci ëpp ñan la ñu néew doole ñi wala wala aristocrate yi mu ne ko ñu néew doole yi ñoo ko gën di topp mu ne ko kon bàyyi mouvement am dafa indi égalité dafa goreel nit ñi parce que servitude benn servitude la moo am mooy bu bi ñu seq ak yàlla waaye servitude verticale amut ñun ñëpp ay égo lañ benn sang lañ am mooy yàlla te bu la formé nga def formation spirituelle jaar ci loxoom da nga xam ne dëgg dëgg yow benn mu benn benn buur nga benn buur nga am mooy yàlla ndax bàyyi dafay wax ne aarif billah ki xam ki yàlla moom dara moomu ko dafa libre Cheikh Tidiane sax jàngal nañu am murid Tidiane xorun fi nafsi yi taalibe Tidiane Cheikh Tidiane mooy dafa libre kenn moomu ko dëgg dëgg liberté boobu ak égalité boobu bàyyi moom nga gis engagement yi mu doon jël pour réew mi am indépendance daf cee xeex lool te loolu booy gëstu histoire Sénégal da nga ko gis bu baax bu yàgg rek maa ngi gis benn livre bu benn jigéen bind tuddee Katia Voltolina tuddee ko la fédération du Mali Euh, du rêve euh, à l'illusion di wax ay télégramme yu bindon, bindoon bi constitution Sénégal bi imposé laïcité bàyyi ne moom d'accord ci loolu def ay télégramme ba am na sëriñ yu bëri sax yoo xam sëriñ yu xam télégramme wax ne ne ñoom bokkuñu Vision te pourtant ñoom ñëpp a ci àndoon waaye moom dafa am courage di défendre lim Beaucoup d'indépendance, ouais, d'accord ci ñu élite boo xam élite formée à l'occidental la ñu ci nourrie à la sève communiste ñu ñëw imposer ñu athéisme bay mom d'accord toon ci lool bo gisé mu voter oui pour la communauté lool mo taxone mu ne indépendance dana am way buñ ko def à n'importe quel prix té tegaat fi élite bo xamné danaka dañuy dañuy wat dindi fi diine lool mo taxone mu xeex ci xeex bu reuy bay def interview radio AOF di di def campagne pour le oui nga xamné kon bay du sëriñ rek bu tok ci tok ci deram wala ci jàkkaam parce que xamné ne islam diine république la bo xamné da fay régner sur les âmes ak sur les personnes bàyyi di ñu xamal ne équation bi mu jàngee ne nit ki dafa war a fàggul bakkanam fàggul jëmmam. kon Serigne Ahmed Boucar Niang kii di Baye Niass aussi ñu xam ne ci rapport yu nga doon wax digganteem ak ñooñ nguur waaye digganteem itam ak état africain yi defoon na ci moom aussi mu nekk un panafricaniste boo xamante ni itam bëggoon na ànd ak ñi nga xam ne ils sont épris de démocratie et de liberté. dëgg la Cheikh Ibrahim panafricaniste bu mag la woon waaye dafa gis ne ci Afrique mën nañoo booloo. waye moteur bi moteur bi lu tax dafa gis ne fléau bi gëna sonal africain yi racisme bokku na ci ak discrimination raciale te mu ne modèle yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy nim ko waxé fa ifriqiya la tartaji ghayra ahmadin nabiyyan hadanna ilahu wal aqariba afrique amut meilleur espoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa yaakaaram bi gën a mag mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu tax ku mu bokk ak ci deret à cause de ñoo ci proche ak étranger ñoo yem ci moom te loolu problème Afrique Afrique la te loolu dafa ñoraloon bàyyi lool ndax da ngay gis ne instigateur comité euh, islamique des chefs religieux 1957 1958 loolu changé que euh, conseil supérieur des chefs religieux ñu am euh, moom moom donte mooy instigateur yi jéemutal jël les devant mu bàyyee mag ñi nga xam moo doon seen doyen d'âge mu Seydou Tall ak Serigne Fallou ñu nekk ñu nekk les les présidents moom mu dem rek bokk ci secrétaire waaye lu taxoon mu nekk instigateur comité yu mel noonu mooy pour islam Sénégal gii nekk war a am indépendance islam am ci cër bu law ñu bañ ñoo delloo gannaaw mu bokk ci da ngay gis ne euh, gis nañ correspondance bu mu bind doomam xalifaam alhaaji Abdoulaye Taawam 1958 mu ko yónni woon mission en Afrique moom ak professeur Ibrahima Mahmoud Diop ak professeur Habib Niang mais mi ngi wax euh, Khalifa al Hadj Abdoulaye ne ko gisee naag président Mali Modibo Keita maag moom d'accord nañ ci ne buñ nangu fédération Mali bi ñu bëgg a créer mu boole Sénégal ak Mali buñ nangu ku dul jullit jiite ko ndax ñoo fi ñoo fi lu mu bon bon ñoo fi ñoo fi majorité d'accord nañ ci loolu. nga gis ne boobu fédération bi créé guñ ko sax mais bàyyi mi ngi activé wu ay réseau pour ki koy jiitee ne euh, doon jullit. nekkoon xaritam gis nañ biñ créé association islamique du Mali mu choisir Baye pour mu conseil association 1961 euh, wax ne courage pour plaider indépendance des pays africains bind na livre ko aux Africains lettre ouverte la mu l'archevêque de Dakar euh, euh, Jean Lefebvre l'Afrique aux Africains mi ko le de liberté bi soufflé bi ni Afrique du Afrique nga gis ne loolu bi ñu koy wax 59 neuf indépendance yi indépendance yi commencé boo génnee Afrique francophone bi dem ci pays anglophone yi rapport yu mel noonu la amoon ak ñoom bi muy dajeeg Kwame Nkrumah kooku dèjà kaso la doon doog a génn ñëw ñaan loo bàyyi ne ko dafa bëgg a nekk jiite Ghana Cheikh Ibrahim ñaanal ko bi ga mu nekk président Ghana bi Ghana am indépendance moo ñëkk nekk président Ghana Nkrumah comme panafricaniste la woon moom conseil yi ko waroon yëpp ay africain la jógee fu nekk amoon na ci kenn ko xam ne suñu papa la muy professeur Habib Niang moo doon conseiller spécial am en matière de politique africaine bàyyee ko yar moo ko moo ko moo ko tarbiya nga gis ne loolu nekkoon na lien ak Kourma ak Baye fekk loolu moo xam na Baye ñaanloo ko ba gis euh, résultat yi ñaani Baye ak gis ak sellam te Kourma dafa créé benn théorie bi ñuy wax conscientisme théorie boobu dafa gis ne euh, mën nañoo jël idée benn ay idées yoo xam ne idée socialiste naam waaye nañ dem ci Afrique antique jël fa ay principe nañ jël principe ay principe yu jugee ci religion yi loolu yëpp formé benn idéologie boo xam ne moom moom la tuddee conscientisme kon moom dàqutoon diine euh, dàqutoon diine euh, ci lépp euh, mu bëgg bàyyi lool invité ko ay visite officielles yu bëri da nga gis ne bi mu bi muy inauguré institut Kwame Nkrumah idéologique Winneba ci Ghana dafa invité Baye Baye rek fa nekkoon te du chef d' état parce que ki Joseph Tito la invité ak Brejnev président Union soviétique Cheikh Ibrahim nekk fa ñu waxtaan ñu waxtaan fa waxtaan bu fructueux boo xam ne wanee na sax message yi bàyyi ci àddina bi ndax euh, Brezhnev dafa laaj bàyyi ne ko noo gisee un monde multipolaire àddina boo xam ne <clears throat> dafa yaatu ñu nit ñu bari nekk ci bokkuñ ay pas-pas ah, bokkuñ ay waaso te ñu war a bokk dund ci àddina bi ci jàmm noo ko gisee bàyyi ne ko loolu benn burgaat rek laa ko gisee benn ndëkk su ndaw soo xam ne am nañ pecc arène publique boo xam ne ñoo ko am suñuy identité ak suñuy diine mooy suñ suñuy privé ñun ca la ñuy bëccëg gi ñu bokk place publique bi guddi gi ñu dallu ci suñuy identité waa ji ne ko kon au moins ñun ay frères lañ ci durant le jour ci biir bés bi kon ñun ay mbokk lañ dafa kontaan ba jug accolade Baye professeur Habib Niang nettali na loolu Oustaz Barham Diop nettali na ko ay yoon mais Baye daf ko amut ci wax ko mais daf ko bind gis nañ nag manuscrit bu mu bind di wax ci cohabitation pacifique entre ay nit ñoo xam ne bokkuñ diine ñu war a bokk penc mi bokk jàmm yàlla terewuñu ñu rafetal jëm ci suñuy dëkkandoor yoo xam ne bokkuñu ak ñoom sax diine ndax yàlla moo wax ci alxuraan shana'aanu qawmin ala la ta'dilu i'dilu bañ ay nit bu mu tax bu mu teree nga am équité nga pratiquer éthique envers ñoom na ngeen màndu yàlla moo ñu ko wax ci alxuraan bàyyi mu ne kon yàlla terewuñu ñu am benn compréhension entre des gens de de religions différentes yàlla terewuñu ñu maslaak ñi nga xam ne bokkuñu ak diine comme ñoom génnewuñu suñu kër ni ko alxuraan waxee te ñi ngi ñuy baaxee kon ñoom war nañoo baaxee war nañoo baax jëm ci ñoom kon na gis nga rapport am ak pays Nigéria ku ne xam na ko euh, wax naa fi Alaaji naa wax président Yakubu Gow waaw moo xam la doon ooyee Baye jàpp ne baayam la gis nañ lettre bu ko Baye bind ne ko ñi ngi ma wax ne yaa ngi ñëw Sénégal en 1971 te ba bëggoon a tukki sax waaye maa ngi toog di la xaar te maa ngi yaakaar ne sa voyage bi dina rehausser la bannière du panafricanisme et de l'homme noir nga gis ni Baye di waxee noonu nekkul doo ay l'homme noir la lay wax ak euh, bannière du panafricanisme nga xam ne kon dëgg dëgg ni maam Serigne Baye doon wax ne moom Serigne la bu raw jamono dafa raw jamonoom idée yi mu doon développé di ko propagé dafa mel ni ci lañ ci la ñuy doog a yegg sax waaw dëgg la kon léegi bu ñu ñëwee ngir jeexal rek ci aspect économique bi parce que itam moom euh, donte itam foon ci yoonu yàlla googu lépp mu def ko itam ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais terewul nag itam ci wàllu koom ak lépp luy jëmale réew mi kanam ak liggéey def ci farlu woon itam am ci pas-pas goo xamante ne wane na ko ci ay fànn yu bëri ak ay gox yu wuute. dëgg la parce que islam du taxale dund roxo gi ak du dund jëmm ji loolu tax économie wala intéressé ju wala intéressé julit cheikh euh, maam Serigne Baye mi ma doon tudd léegi di rek cheikh Ibrahim di di di bokk ci kàngam yi nga xam ne nii ñoo ko dar dafa doon wax ne dafa joxe définition ci indépendance définition boo xam ne man dëgg-dëgg yaakaar naa waroon nañ di ko jàngale indépendance du dara lu may tànk xam-xam ak tànk am-am ci kaw suuf si jàmm xam nga loolu benn triptyque la boo xam ne buñ ko médité woon yaakaar naa dañ xam ne indépendance ñun daanaka amaguñ ko ba léegi tànk xam-xam tànk am-am ci kaw suuf si jàmm jàmm bu amut amoo loo dundalee bakkan bi jëmm ji taxaw jàmmu yàlla sax daf lay tëb loolu tax Baye dès 1936 37 bi mu jógee Màkka mi ngi bind lettre gouverneur général de l'AOF muy Marcel Marcel de Copé di ko wax ne nañu insérer ci njàngum daara yi dama bëgg ngeen dimbale ñu insérer ci njàngum métier nga gis ne daara moderne ñuy wax moom ba mu koy wax déjà lu 1937 la boo demee ci livre France and Sénégal euh, France and West Africa euh, ku ñuy wax euh, Chris Harrison Harrison moo ko bind benn américain mu ngi wax ne politique publique bu ko bu bu France ci boppam ci Sénégal daanaka bàyyi moo leen ko dicté en 1937 en 1952 politique éducative bi ñu war a adopté ci ci bàyyi ko inspiré woo ndax 1937 ak 1952 yëpp daf leen a bind lettre di leen wax ci njàng mi nu ñu ci war a professionnaliser nu ñu ci war a dugalee njàngum métier nga xam ne liggéey daf ko intéressé 1945 ci guerre bi di dawoon nañ dem Gambie tool yi kenn bàyyeetu ko tubaab yi ci moom lañ daw ñëw ak sëñ Bassirou Mbacké pour ñu def appel pour nit ñi ñëwaat au travail à la terre ñëw liggéey suuf si ndax réew mi mën a réew mi mën a suqaliku gis nañ lettre boo xam ne El Hadj Ibrahima Diop grand sëriñ de Ndakaaru di papaay actuel sëriñ sëriñ euh, euh, El Hadj euh, Abdoulaye Matar Diop moo ko bind gouverneur général di ko wax ne Cheikh Ibrahima mii il faut ngeen jàppale ko parce que non seulement yar gi mi yar taalibe yi civilité gi nga xam ne civisme gi nga xam ne def na ko ci ñoom mais li muy bay ci hectare loolu mën naa jëriñ réew mi lool jëriñ communauté bi kon il faut ngeen bàyyi ko xel bàyyi xel ñi mel ni liggéey la xam daara ja euh, jumaa ja tool ya loolu rek lañ xam ndax noflaay amul ci dundi jullit boo liggéey yaa ngi jaamu yàlla boo nekkul ci ibaadaat yaa ngi ci muamalaat yi diine julit amut réppi waaw lépp rek ma hmm? jaalnaahum jasadan laa yakuluuna taama wa maa kaanu xaalidin yàlla mu ne ci suratu anbiya defuma leen ngeen di jëmm yoo xam ne dañuy dund éternel dafay dund te soxlawut lekk waaye defuma leen ngeen di jëmm yoo xam ne ah da ngeen fii béel du ngeen dee Cheikh Ibrahima mu ne équation boobu li mu ci jànge mooy dañuy liggéey pour jëmm juddu amu yàlla jege sàkkoo jege yàlla ndax roxo gi am bi mën a dund ba bu ñu dajeeg yàlla mu gërëm ñu ñu ñu ñu gërëm ko kon daal oisiveté toog nangoo def dara loolu du jàngale bàyyi te du jàngale lislaam yenent bi ñu ngi koy askan wax joo xam ne euh, mën naa am ñoo xam ne ne nañ euh, du xadis bu bu authentique mais julit bu dëgër moo gën julit bu néew doole bu dul xadis sax principe la boo xam ne pour a ne ne firndeel na lu bëri nga dëgër jëriñ sa société ndax euh, soxna suñu yaay Xadija soxnaam radiyallahu anha bi ko yonent bi ñëwee mission bi feeñal ko feeñu feeñu ko bees jibril mu tiit foog ne dafa war a jommi wala dafay dof daf na koy yow doo dof lu tax mooy da ngay yenu coonoy nit ñi te da ngay indi ci dëkk lu fa amut jullit dafa war di innover nekkut jullit nekkut ku baax ci boppam waaye mooy ki baax ci société baax ci entourage am te loolu muy jàngale Cheikh Ibrahim da ngay gis ne bi mu demee Chine 63 ñu ne ñu koy présenté ay officiel euh, yuy liggéey premier ministre chinois Chou ku nekk ñu présenté la ne kii citoyen bu baax la kii citoyen bu baax la bàyyi na daal pour gàttal wax ji ne leen ñu yar jullit bu ñu yaree jullit rek danañ am citoyen yu baax waaw dëgg dëgg loolu mooy mooy mooy mooy jàngale Cheikh Ibrahim te mooy jàngale yéntu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tamit mu lay gërëm di la sant di gërëm di sant ñuy teewlu Walfadjri ci waxtaan bi ñu amee la fii ci Medina Baye jagleel ko itam mawlud bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Medina Baye nga xam ne euh, yaakaar naa pay la bu euh, ci bés bi nga xamante moom lañ jagleel rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di gërëm di sant waa mi dina Baye ak ñëpp ñi nga xamante ni itam ñooñu may ba ñu def liggéey bi nga xamante ne bu mucc ayib la fii ci place bi nga xam ne ren ji itam lu aju ci wàllu mawlud asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa